ba tey ci seen scandale du jour taxi yi nag fippu nañ nee nañ kii di Ousmane Sonko daf leen daal di décevoir daf leen daal di wor ñu déglu ci kàddu yi ñëwaat. taxi yi Sonko la parce que la tax ñu def ko ñoom ñoo jëleen seen xaalis ci campagne bi dem jox ko jox Sonko di cee jooy seeni naqar ba ñu ko defee nag dem ba ci biir waa ji falu amagul ñaari ñu bëgg dal ci kawam ci la nga ñu waxan kay nga def ko da nga bëgg wax taxi man yoy ñom jappalé won nañ Ousmane Sonko ci campagne bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax lañ ko jappalé won ñom ak seen jitt la leen fa yóbbu lepp jappalé nañ ko bu baax yëkëti ab copper jox leen ne dañ koy dimbali ci campagne bi ya nga wax lu graw nak lañ ko doon dimbalé ci campagne bi nak ger gan doon bañ taxi man yoy def nañ ger nak. parce que ku duggal sa xaalis waji liggéey liggéey matagul ñaari wër nga taxaw ci kanamam ne ko lima la waxan kay nga fajj ko kon lañ doon bañ ñun jógagu fi. kon ñoom seen wàll la ñuy laaj. seen wàll la ñuy laaj man de noon laa ko jàppee man man noonu laa ko jàppee noon laa gisee seen wàll la ñuy laaj parce que bu nit di campagne nga jox ko dara mu fa lu matagul ñaari weer nga ne ko kaay ci li ma la waxan la nga joxee na tax. ñoo ko déggandoo lañ doon ban lañ doon bañ. jógee jógeeku fi ndax nekk corruption ak ger lañ fi doon tere lañ fi doon xeex te ñoom wax dëgg fa yàlla ginnaaw kàddu yi nga xam ne kii yëkkati na ko nee na ñoom ci lañ doon dox ndax ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay taximan dañoo daal di dajale seen i koppar daal di koy jàppale ki nga xamante ne mooy Ousmane ko ci wàllum campagne électorale bi ñu génn te bu ñu taxawee ci benn deux mois ñëw génn naan ko kaay def lu ñu waxoon c'est parce que dafa am li ñu dëglante woon dëgg la yéen jël ngeen seen xaalis yow nga daw journée bi yëpp wara a verser verser woo yor sa njaboot yoxoo sa njaboot nga dajale jox ki la ëpp xaalis ëpp la marsa ba ëpp la euh, nu ñu koy waxee bayre yow nga dajale dem jàppale kooku te boo xoolee jour boobu seen njaboot yi est-ce que reereen reere wuñu sombi ak ak ak ak fonde ngeen dajale ba mu bëri nag ngeen daal di koy jébbal Ousmane Sonko mu sell bi Ousmane Sonko ëpp leen xaalis fuuf Ousmane Sonko ëpp leen bayre fuuf Ousmane Sonko gënal leen stable fuuf yor kërëm giik ci te kër goor gi di dawal ci auto yu ligg yeen ngeen dajale jox ko légui nak yeen yeen yeen pour yeen yeen ay nit ngeen yeen légui lan ngeen bëgg moom moom daal mu toog rek ñoo jublu ci yeen talu leen. te ma ne ngeen noppi rek la ñun dañu ñun xola demaguñu fenn suñu nguur gi demaguñu fenn ba ngeen di génn ka naan dañuy grève ak dañuy autorisation manifester bu leen ñu fontoo munoo yónni nit ba pare di xëcc tànkam pour muy dellu te nga bëgg mu dem mu yegg fa fa nga yóndi yéen yéen a dajale seen xaalis jox ko Ousmane Sonko ne ko nag ko campagne gaaw am nguur gi ba jàppale leen ngeen jox ko ko nag nit boo ko dénkaane ka nga wóolu yéen a jël seen koppaar jox ko ko jàppale ko en tant que citoyen yaa ngi dégg bu leen ñu fontoo ma ne ngeen toog ragle te ñii lañu def ngeen ànd ci parce que dafa teel yéen xam lan lan mooy seen problème ñii amaguñ fi trois mois di ku nekk jël micro ay wor nañ ñëg sonn na ñëg du lii la ñu waxoon waaye yéen vous êtes yéen lan mooy seen problème est-ce que ça ñii ñii dañoo bees si mbir yi li ñuy ragle si boppam ci biir moo gën a bëri li ñuy ragle ci biti ndax dossier yu ñu fekk si table bi ci boppam président moom da koy tiim di nelaw ndax sonn ndax mbirum présidentiel ci boppam moo doy waar te présidentiel lu ci li ci métti mooy man naa tey sama bopp bu métti woon sama naan ay jomaay jàpp ci sama combat beeg yu kenn xamul jomaay a ngi def lu mu mën ba leen ñu fatt trois mois dafa teel pour ngeen génn de rajji rajji te yéen a ko fal yéen a fi toog naan doyal ngeen sëkk ci Macky ñii ñoo baax ñoo yiw ñoo mën léegi nag ñu ngi fii yàlla teg na leen ànd si ak yéen dangeen ngeen di toog régler tey may ñii ñu yeggali li ngeen waxante woon yéen ak yéen ak ñuy dégg dañoo sonn ci ku leen tàllal micro ngeen naan waaw wor nañu sonn nañu di leen la ñu wax yéen yéen kañ ngeen di kañ ngeen di stable yéen ci Ablaye Wade da ngeen sonnoon fal Macky ci Macky ngeen sonn fal ngeen noo mag la xamul lu bari léegi xale yi lañuy tànn ngeen tànn am xale. ngeen tag ko fii léegi nag ngeen bëgg a gor ay tànkam pour la li ngeen di wax nii ban sens la am ay bett nañoo def ku defagul trois mois koo xamante ne euh, toogagul sax réglé toogam régléegul tamit nañ waxante dëgg ay ah, yow da ngeen yéen yéen yéen yéen fal toog leen ñun ñun ñun nu ñu toogee di patienter te ngeen ñaanal leen euh, mbir yi yomb seen kaw ndax dafa métti c'est pas c'est pas facile de diriger pays bo xamantene jeunesse bi dominé les vieux jeunesse du am ben patience bi jeunesse japp na ni dafa wër mëna réussir kout kout coûte kon c'est pas facile de diriger un Sénégal légui nak yeen da ngeen di toog régler le continuer seen taxi yi di daw. ba gis li leen doy gisoo leen lu leen doy ni da ngay gore ngeen boole patak organisé dafa teel wax ji dafa teel bu leen ñu sonal bu leen sonal Sonko bu leen sonal ba Bassirou Diomaye fay am na loo xamante ne bu ñu la ko waxee yow sa boobu da nga xam ne lii mënta nekk lu bëri yéen a koy toog fii di ko kalaami Ousmane Sonko ko waxoon Ousmane Ousmane Sonko ba mu koy wax yéen xam ngeen dofoo leen jinne xam ngeen ne lii mënta ne te da ngeen ciy ànd ak moom kon bu leen ñu fontoo bu leen ñu fatt ku leen tàllalati micro xam nga lan ngeen dañ koy wax ah ñun daal wóolu nañ leen jox nañ leen carte yi léegi ñu ngi leen di toog di leen xaar tukkuur amoo loo leen fay yokku waaye ay sonn nañ ñu ngi deeg ñu ngi kii wak ñu te leeroon na leen ni Sonko bi muy taxaw di wax yéen yéen xamoon ngeen ni kii lu muy wax mënta ne tew da ngeen cee ànd ak moom di tacc ak yuuxu fu mu tourné ngeen tourné fa il faut arrêter yéen nii c'est de l'hypocrisie quand même kon seen bëggeel mi moom fan la nekk pourquoi pourquoi tout le temps nit ki di jital intérêt pas et l'intérêt général pour ñeen jamono yi dalem talagum yeen ñi taxi man ñun bi lañ waxagum bu ñu joggé ci bi après ñu jublu ci yeen taxi man te yeen nak yeen lima neex ci wax ci muy dégen dajalé la ngeen daan yor jappalé ko ñi kon da ngeen di xaar ba lepp soti kay bu ñu déranger wax ci wax ju bëri ji duma ko mën You're the chou yon ki fi waj